dañuy Tambali suñuy kàddu muy kàddu nuyoo di nuyoo jullit muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu suñu kàddu mi ngi bàyyi ko ci njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal mu yónnee ñu fii tey ma ànd la délégation pour xamni rañé nañ ci sama gouvernement bi mu ba ministre bi nga xamni et de lañu dégg économie numérique ak télécommunication di wa Thiès ñu donc ak gouverneur de la région de Thiès and ak préfet du département de Thiès and ak sous-préfet du arrondissement de Thiès Ouest ànd ak sëñ Fallou Fall ambassadeur itinérant président wax ni bu ñu ñëwee ñu jël ay nuyoo jagleel ko mbooloo mu fi teew yépp jaarale ko ci Amir Abdallah bi nga xamante ni moom lañu wax léegi fal biñ ko fal fii président wax ni te feeñ na ci seen résolution bi ngeen liir léegi àdduna bi day mi ngi ci crise bu metti crise boo xam ni dafa bare ay fànn crise des valeurs crise économique crise sociale ci wàllu résolution bi am na point buñ ci wax wax ci ñi nga xam ni kenn du tudd seen tur mais dañ naan boroom ñaari tur yi loolu dafa am loo xam ni li tubaab di woyé invariant manam lo xamni aduna du dox ba mu ci position wu président Macky Sall ci position wu gouvernement ak fu manti do mo xam ci tribune des Nations Unies mo xam mom ci bopam mu tukki ci bitim réew moo xam mu am ay gan yu mag yu jóge bitim réew seet si ko waxam benn la di président Macky Sall tant que mi ngi nyonyu président ci Sénégal ñooñu ñuy wax ñaari ji

bu demee bitim réew loolu la leen di wax beneen bi ci des te mu feeñ ci résolution bi mooy beneen crise bu ñu am muy mbas c'est une crise mondiale bi mu ñëwee am lu mu def ci suñuy économie lim ci def beneen crise ñëw tàbbaliko moy di am feulé ca boru Ukraine té mu am ay conséquences ci suñu dund ci suñu économie lu bare bare bare wante niñ ko waxee sànq rek bu dara xewé da ngay noy nooy fagaroo ba sa askan du metti ci ñoom té loolu le président Macky Sall def ci walu Covid bi ñun ñëpp gis nañu nañ ko dalalé fi ci suñu réew ak mesure yu am importance yi président Macky Sall jël jaralé ko ci gouvernement pour yu mëna dimbali askan wi ci seen dundu ci seen nekkin dimbali entreprise yu jafé am ay jafé jafé

téeméeri milliards ak juróom fukk te bu crise bi continuer wul bu continuer dina egg ñetti téeméer ak juróom fukk pour ñu subventionné njëgu courant bi ndax askan bi man a man koo fay ci anam yu gën a rafet crise boobu jàngal nañu ko tamit ñu war a tamit xalaat ñu ëllëg comme yàlla may nañu ñu am pétrole ak gaz waaye waaye ñu jël ko di toggal suñu bopp suñu courant ak li nga xam ni moom la ñu soxla ci wàllu énergie beneen bi mooy souveraineté numérique fa lay jeexale ci souveraineté yi te président Macky Sall dénk ko suñu xarit bii Yankhoba Diattara ndax réew day am souveraineté ci ay données ay at ngi ci ginnaaw suñuy données yépp ñu ngi ko doon stocké à l'étranger bitim réew ñoo xam suñu lépp ndax ñooy gérer suñuy données président dañoo am souveraineté numérique moo mu tabax data center bi nekk jam ñaajo nga xam à partir de maintenant ñoy mom suñuy données kenn duñ ko yóbbu feneen bitim réew ñuy xam lu ñuy doxale doxaleeg suñuy données nga xamni c'est des données très sensibles